nous sommes venus par la voix des sans-voix qui est là, M. Guy Marissagna, pour s'exprimer par rapport à ces licenciements abusifs. Si aujourd'hui, les gens ont fait 18 ans de travail au sein de la société Africa Chips, des mères de famille, des pères de famille qui ont été licenciés abusivement, en complicité avec la banque CBAO, Ils ont refusé même de nous payer nos indemnités de congé, nos indemnités de licenciement. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. L'État doit être au courant. La justice sénégalaise, nous appelons à tous les niveaux, au ministère du Travail, parce qu'aujourd'hui, eh, si eh, les 21 personnes qui ont été licenciées, des personnes ordinaires, les délégués du personnel ont été aussi soumis à une autorisation que l'inspection du travail a accordée, l'autorisation de licenciement de ces délégués du personnel. Aujourd'hui, le document, euh, on a adressé un courrier au ministère du Travail pour le cas des trois délégués tutélaires qui ont été licenciés. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu une réponse par rapport à la demande. Maintenant, nous demandons aux autorités à tous les niveaux, au siège du FRAP, à vous les médias, de nous aider vraiment pour que nous puissions recevoir ce que le droit nous, donne. C'est par rapport à ça que nous sommes venus voir M. Guy Marissagna, la voix de sans-voix, pour nous aider à faire passer ce message à tous les niveaux, à M. Macky Sall. Comme il a si bien dit, au lieu de parler de la guerre Niger, il faut parler du Sénégal d'abord. Donc c'est par rapport à ça que nous sommes venus avec nos mamans, nos sœurs, nos pères, parce qu'il y a des gens qui ont fait 18 ans. Nous avons travaillé durement pour que cette société avance. Aujourd'hui, cette société a deux filières au niveau de la sous-région, au Mali et en Côte d'Ivoire, et ils sont implantés aussi dans la région de Caisse, ici au Sénégal. Tout ça, c'est la sueur de ces travailleurs. Parce que c'est nous qui étions là-bas depuis 2005. Donc nous prions la justice à ce qu'ils fassent leur travail pour que nous puissions avoir ce que, nous, ce que droit nous donne. Je vous remercie. Monsieur Abdou Karim nous, membres du FRAP, et moi, député du peuple à l'Assemblée nationale du Sénégal, nous vous exprimons toute notre solidarité. Nous vous disons que, à partir d'aujourd'hui, vos problèmes sont nos problèmes. Vos préoccupations sont nos préoccupations. Et nous sommes désolés que l'Assemblée nationale ne s'occupe pas, plus de ce genre de problème. Nous sommes désolés et nous vous exprimons nos excuses que l'Assemblée nationale du Sénégal ne parle pas beaucoup plus de ce genre de problème. C'est de ce genre de problèmes, les problèmes des travailleurs, les problèmes des pêcheurs, les émigrés irréguliers qui meurent dans le désert du Sahara ou la mer Méditerranée, les problèmes des étudiants, les problèmes des élèves, des paysans, des pêcheurs, des éleveurs, etc. C'est de ce genre de problèmes. C'est ce genre de problème qui devrait tonner à l'Assemblée nationale. C'est ce genre de problème qui devrait faire vibrer l'Assemblée nationale et non des désentés. ay wax yu ñàkk fayda ay waxu picc nous serons avec vous dans ce combat jusqu'à la victoire nous vous félicitons pour votre posture parce que seule la lutte libère seule la lutte libère quand on lutte on peut gagner quand on ne lutte pas on peut déjà perdre quand on ne lutte pas on a déjà perdu quand on lutte on peut gagner Et nous pensons qu'avec beaucoup de détermination, votre détermination, nous et d'autres à vos côtés, nous gagnerons. Déjà lundi, je vais interpeller le gouvernement du Sénégal à travers une question écrite sur la situation au niveau d'Africa Chips. donc bonne continuation nous serons à vos côtés. jërëjëf waaw waaw Iwaan yi ñu leen jox xaalis bu dul jeex bu ñu ñëwee fii si gis dara di fay gars ay salaire bu ñuy wax ay 50 ay 60 loolu loolu si dëkk bi loolu loolu est-ce que loolu yoon la. est-ce que loolu yoon la si dëkk bi nii te ñu te ñu am ñun ay njiit yu nekk si dëkk bi war ñu xeexal xeexaluñu bugg dem xeexal ñeneen si àll bi xanaa balaa ngaa laax jaay ba pare xanaa lekk nga dimbali ñu nekk si réew man nag ba léegi aadama tàmbali ñu ngi koy jooy loolu moo ñu ba amuñu lu ñu wax xam naa nag sama wax fi laa koy yamale xam naa lu euh, euh, euh, ñu ngi leen di jaale suñu mbokk Adama Tambidou xam ngeen euh, moo tax euh, émigration irrégulière bi mbëkk mi jógee gu fi de dégg ngeen waxam ci liggéeykat yi la bokkoon nolwen di tubaab bu xonq cuur xëy tëj entreprise bi ñoom nee nañ ay policiers ñoo ko jàppale ba mu daw noonu la demee nag le 18 juillet ñu dem pour jox ko convocation inspection du travail 18 juillet boobu ba tey kenn xamul nolwen fan la ndol way nay ci àddina bi kenn gisatu ko mu réer ne may te police gendarmerie mu ngi ñuy tongali ñun ñun mu ngi ñuy tongali bés bu nekk yow nga am ay jigéen joxoo leen liggéey nga am ay personnes handicapées joxoo leen liggéey liggéey bi ñu bi ñu war a am sax ci fonction publique ñu ne 15 pour cent ci fonction publique état buy recruter da war a jox personne personnes handicapées joxoo leen ko ngay jël say militant di jël liggéeyu personne handicapé yi ñoom ñu am seen jom seen fulla seen fayda ku xool Moussa Camara xam ne ndaw la boo leen xoolee ñoom ñëpp ay ndaw lañu ce sont des jeunes jigéen yi ëpp ci handicapé yi ëpp handicapé yi ëpp ci yow jàppale woo leen aaroo leen ngay jàppale benn tubaab muy daw ak seen alal ak seen xaalis gisoon ngeen vidéo bi muy def le buzz jamono en fait mois de juillet ñii woon ñuy dàq benn tubaab muy dugg ci benn taxi ñii la woon waaye yow sa dara motul nga ne da ngay jël suñu doom suñuy doom soldaa sénégalais ne nañu dem deewi Niger pour que réewu France continue di am uranium uranium mu Niger bi joxe courant France waaye loolu xel mën na ko nangu président Macky Sall na nga lijjanti suñu problème lii doy na la xëy gontu. lii ëpp na tool ëpp na waar tool la ëpp na sax tool ñu ngi leen di jaale suñu mbokk Adama Tambédou yàlla na suuf woyof ci kawam yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na fi gëj itam waaye duñ ko bàyyee nii dinañ ko topp ma ne du si njekk du ci teranga nañ leen fay seen xaalis entreprise française la état du Sénégal na ko lokkati ambassade France bi fi toogal réewu France na lokkati Nolwenn ñun Nolween day dem kaso du dem kaso suñu yoon newu ci suñu xaalis lañu ñu bëgg buñ ñu joxul suñu xaalis fan yii di ñëw ñu ngi dem ambassade France fii ci Sénégal waaw waaw buñ ñu joxulee liggéeykatu les ateliers Ligro seen xaalis fan yii di ñëw dañuy dem ambassade France bu nekk ci Ndakaaru wetu place de l'indépendance ne France yow yaay bàq sa bopp. pays de droits de l'homme pays des lumières naka nga ne seetaan sa doomi réew ñëw fii d'accord di noot suñu ay suñu ay doomi réew xam ngeen li mu bind ci euh, manam këyit buy présenter entreprise am maanaam ci internet noonu wen laay wax de tubaab bi Nous avons fait le choix d'implanter notre unité de production textile au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, un des pays les plus pauvres du monde, avec pour mission de pérenniser des emplois qualifiés pour des personnes en situation d'exclusion parce qu'elles ont un handicap ou parce que ce sont des femmes. lii ngeen di lire ci internet moom buy présenter moom tubaab bi buy présenter entreprise am